Always be. les gars Chaar Magal dos bir la aka góor gu ñaaw yaa ma gën a xam maa ngi leen bu baax baax yéen nga xamante ni yéen may bàyyi xel ah, ci chaîne bi maa ngi leen di bégewaat di leen siyaar di wax gars yi nga xamante ni ñoo ngi dog yër si chaîne bi ah bu leen fàttee abonné te boo leen abonné ba pare bu leen fàttee ba seen close notification bu vidéo buñ mën tuwal rek ngeen mën ko am gars yi nag tey dañuy ñëw ah, wax ci ah, li nga xam ni am na ci euh, Galsen hip hop awards concernant Mr Cash après dinañ ñëwaat xam na spécial wax si suñu gis-gis si Galsen hip hop awards mais kaaw Mr Cash mi nga xamante ni bokkoon na si révélation yi moom Talbi ak Akatsuki euh, nga xamante ni euh, waa Akatsuki lañ ko mujjee jox loolu tey dañuy ñëw ñu wax ci suñu xalaat li nga xamante ni mo nek euh, suñu suñu gis-gis quoi donte gis-gis yi bokul bokkul na Sénégal mom xëy na des fois nga wax wah xam ki li ngay wax euh, kee andu si mais nako nek rek nangul sa morom peut-être li nga xamanteni wax nga ko tamu nek li nga xamanteni positif lay don avant lolu lo dama len di wax ngeen dem setan vidéo bi do blague Yendo from Bawol from Reug Seus Record mu génn ben son bo xam actuellement mom mu ngi tasaare ah mu ngi tasaare fépp surtout TikTok ah, côté YouTube ak si streaming yëpp ah gars yi ñu ngi koy kiffee nice ah, vidéo bi nag nekk vidéo bu nice gars yi ah, lien bi ngeen di seen ci kaw cliquer leen ci ngeen dem seetaan vidéo yi te ngeen seetaanee ba pare ngeen abonné dooleel ko te xam ni. wayal na bol <laughs> boli ha ba ngi ci commentaire yi salung salum salum gi naan man quoi walo walo waaw mais yeb deug la ben la mais say mom dafa beral loxo bawal boli acca dam len ngeen setan euh, vidéo bi nice na trop euh, produit par african studio euh, ñom tamit di len wax liguey bi muy nice nice coûte njaga mor waaw ngañ ma len di féliciter ci vidéo bi vraiment nice na gars yi dañu ñew directement ci euh, Mr Cash mi nga xamante euh joxuñu ko révélation ci sen Hip Hop Awards loolu nak mu nek lo xamante sama jangat boudé ci ay vote la euh wala dañ ko def rek xol kan lañ ko wara jox mom lañ ko waroon jox ndax groupe biñ ko jox buñ leen xamé Mr Cash moo tax couplem boobu muy wéradi wéradi wéradi wër na bi yëpp bañ ba ku doon déglu sax boo ñëwee ba foofu noonu euh, ci nga yam ndax man mi di wax yow pour man sonwam la woon après laay doog a ni groupe la woon de grâce Mr kes tax na tey Akatsuki ñu xam len ñoom ñu bañ ko ñu nangu ko Mr Kees moo tax ñu xam leen kon tay bu démé ba gis ben événement bu mag muy sen Hip Hop Awards ñu doxale no xamanteni tay ñun ñi nga xamni dañuy euh, consommer rap ñi nga xam ne dañu nekk si milieu bi di ko di ko dund euh, ñu gis ni euh, gars yi ni joxe révélation yi franchement gis ñu ne teg nañ ko si yoon dañ koy wax Monsieur Kees pourquoi pas moom waa Akatsuki ñu leen di jox révélation si si si si si naka si si naka daal comme par exemple ñi nga xam ni jël nañ jox leen ko révélation bi donte Galsen Hip Hop Awards chaque année rek day gën di dellu ginnaaw chaque année seetlu leen li mu leen di wax nekk na benn euh, événement boo xam ne dañ koy rafetlu ndax teg benn événement yombul mais lu toll ni Galsen Hip Hop Awards euh, ñu ñi nga xam ne tey nii ñoom ñeneen ay king lañ ci rap seen ñoom ñëpp retiré wu. te chaque année année bu jot day retiré wu année bu jot euh, nga gis kenn retiré wu ni bokkatul lan moo tax mu ni bokkatul parce que xëy na ni affaire di doxalee. do comprendre Basi Akil demoon na presté mais néna na moom ñëw na mais amna lo xamanteni xamante ci gal sen si hip hop Awashu ba gis ñen récemment wax na ci ndax bu benen bi di ñëwaat Akil du bokku bu nekkoo gal sen hip hop Awashu boo ko lay wax ndax lan parce que xeyna lu muy gis nga di ko doxale neexu motax euh, ñëw na prester mais donte après wax na xalaatam ak nu mu gisee euh, événement bi

ak euh, labelam bi yi nga xam ne fa la nekkoon muy néegu rab ndax xëy nañu xëy gis gaa yi publier ay euh, ay son son yoo xam ne sax mixage yi des na ñu bëri nag dama doon gis ñu naan dañoo war a porter plainte dañoo war a def lii mais pour man li mu te woon nag ak waa néegu rab contra la woon contrat mën naa ne paral ndax fii moom euh, gars yi ku ne da ñëw classe obi gi dañuy ñëw rek ni la waa mais booy dama bëgg signer sa label lan mooy lan moo koy confirmer waaw du ay këyit du dara léegi nag tey jii nii bu label boobu mu nekkoon jël ay euh, sanwunam parce que moom wax na ko nee na projet la fa doon job après nag bi affaire yi ñëwee xam nga rek yaa ma gën a xam euh, Sénégal moom <laughs> gars yi dañoo mën di wane loo xamante ni sax doo comprendre quoi mais li Sénégal fii label amu fi waaw label amu fi label boo xamante ni tey jii nii euh, lii nuy wax nii mooy tax ñu naan label label tur bi rek dafa garaaw. léegi nag ku jug la ni man label label nangam label nangam ñu bind genre affaire yooyu noonu fii bu fi label amoon artiste bu fi euh, nekk si label laa la wax nga def album wala nga def projet saf nga sàpp si àdduna bi ndax déjà di nga décroché ay contrat international waaye label boo xamante ni yow doo bouger maître affaire affaire de affaire de esprit la rek donte comme man mi sama studio bi nii rek waaw ñu ne waaw rek sës label rek sës donte waaw mën nañu wax label ñi rek ci ak Diop ensemble nii muy dem bu bënnee rek après yaa ma gën a xam mais Sénégal moom fii peut-être bu ñu fi wax label benn benn label nga fi wax muy eh, labelu Youssou Ndour bi nga xamante ni tey jii nii moom yor na télé yor na rajo ah, yor na loo xam ne mën na booster artiste te tey fu mu leen bëgg a yóbbu si àdduna bi daf leen di yóbbu un jour dama seetaan aaru mbedd mm, ndongo di bu euh, daara ji di ko wax big respect Pape Sidi Fall di ko laaj ni ko yéen label ngeen yor. ndongo ñu ne ko déedéet ñun yoruñu label de en tout cas lii leen yor muy studio bi nii yoruñu këyit yu ñuy signé yoruñu dara en tout cas daal ñun fii la ñuy defee suñu son tamit ku ñu jàppale fii la ñu jàppale voilà kon lu mel ni euh, ndongo di gis nga même euh, discours bu mu tenir di expliquer nii ñoom yaruñu label te Bois Sacré ko am xam ni euh, nekk na studio yu nga xamante ni yu gën a mag ci senegal ci rab galsen kon affaire entre Mr Cash ak néegu rab loolu moom xëy na mm, lu ñu tënkoon la si ñoom bu waa néegu rab ay son peut-être parewul ñu publier ko saboté wuñ tamit monsieur ñoom tamit seen bopp dañ leen saboté ndax ñoo ñoo job son yi def naa booy jox nit ki lu loo xamante daf ko a déglu war na nekk loo xamante ne tey déglu la jox respect jox respect euh, maanaam yow nga xam yow son bi euh, franchement son bi nga ne def ak euh, ak mu ne son bu nice. may ñu dara but bi côté technique surtout le beat la bi nice na trop trop trop. kon euh mi xayna peut-être bu sen Hip Hop jox révélation Il ñoom tamit nañ leen ko parce que ñu ngi mais tamit ku mérito li nga ni yow eh, yow xam ne ko mérito tamit waaw loolu il faut tamit dañ mais franchement. Euh, tey bu ñu doon bu doon choisir pour jox révélation la la wax de monsieur Kees dañ ko ko war a jox buñ ko joxul monsieur Kees jox ko taal bi man sama part man loolu laay wax quoi man si li ma gis nag waxuma carrément Euh, ni force rek lii ak lee sama xalaat laa laa waxee comme ñi ñi seetaan comme que gars yi moom des fois da ngay wax waxoo bokkoo leen xalaat dañ lay saaga wala ñuy wax la mais man sama xalaat sama gis-gis keneen tamit ku gis ni waa Akarsuka war nañ ko jël tamit waaw loolu tamit waaw nice quoi en tout cas c'était dos euh, bét waaw Doss moo nekk sama canal moom ngeen gis noonu bu leen fàttee abonné te bu ngeen abonné ba pare ngeen bës seen cloche notification ba vidéo bu ñu mën dugal ngeen mën ko am après dinañ ñëw ci projet Gën Moor bi. Eh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ñëw kon maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen siyaar yéen tamit eh, seen réaction ngeen def seen commentaire ci suuf eh, naka ngeen gisee révélation bi nga xam ne jox nañ ko Akatsuki te Akatsuki Mr Case moo tax ñu xam leen. jaajëf gars yi bëgge